mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen àndax ñun si rajo Rewmi FM dimanche bu jot nii lañ koy defee nag si rajo Rewmi FM te ñu am ci gan am ci mbégte bu yaa di ci dalal Cheikh Ahmadou Bamba Diop di coordonnateur bu mouvement la patrie d'abord bu Parcelles Assainies euh, sëñ bi Diop Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi lay nuyu euh, di la dalal ci émission gox bi fii si rajo Rewmi FM. salaamaaleykum euh, monsieur memba vraiment ñu ngi lay sant di la gërëm. Mhm. vraiment di rafetlu invitation bi tey. Mhm. di wax ni mbégte la ñu jàkkaarloog euh, waa àdduna. Mhm. rawatina waa Sénégal particulièrement waa Parcelles Assainies yi ñuy déglu. concernant tey lépp lu ñu war a waxtaanee ci bërëb bu tedd bii. di réew mi. ku ne mi ne Sénégal FM mhm. ok jërëjëf ok Cheikh Bamba dañ mhm. koy daal di dooree laata ñuy dugg ci waxtaan bi mhm. euh, gis nañ njiitu réew mi le président de la République Macky Sall commencé nawaat li nga xam ne moo jëm ci wàllum tournée économique yi euh, ni ki démb mi ngi woon ca diwaanu Ndukumaan Kaffrine euh, war a dem tey ci ngoon si fa fële nga xam ne moo di ca diwaanu Tambacounda ni ki ëllëg itam mu war a dem ca diwaanu Kédougou naka nga gisee tey activité économique yi nga xam ne njiitu réew mi tey mu ngi koy amal. waaw loolu mënuma lu dul rafetlu ko. Mhm. parce que je di que son excellence monsieur Macky Sall. Mhm. nit la koo xam ni yàlla moo ko fi teg. Mhm. parce que yàlla suñu borom moom mooy faxaalu li ma yurid njiit yàlla moo koy tànn. que ce soit mu neex la que ce soit mu naqariñu. que ce soit mu neex Sénégal mu naqari Sénégal yàlla mooy fal njiit. Mhm. kon teg na ko fi. Mhm. ñii ànd nañ ci ñii ànduñu ci loolu du problème. Mhm. lii l'essentiel bi rek mooy jéem a xippi suñu bët xool. bu dee li li mu fi jot a def ba mu fi toogee léegi c'est positif ñu wax ko bu dee am na. la nga xam ne dafa des ñu ne des na. waaye li nga ma laaj moom bu dee tournée bi muy def muy tournée économique bi gisuma lu dul rafetlu ko. parce que jàpp naa ni. dëkk boo xam ni dafa nekk dëkku bu démocratie. am ay kilifa yu baax yi fi nekk muy ci wàllu aada ak ci wàllu diine. Mhm. mu jaxasoog ñoom jàpp naa ne dañ koy bàyyi xel. Mhm. ak yi fi jot am kon mhm. jàpp naa ni tournée économique économique bii muy def. c'est juste que pour xool la nga xam ni mooy yenn réalisation yu ñuy def. ak ñi nga xam ni jot na am lu mu leen dénk nañ ko defee. ndax fa la ñu toll. Mhm. phase boobu la ñu toll jàpp naa ni lu am solo la et que bu doon sama sago du ko bàyyi da koy continuer. Mhm. ba daj Sénégal pour mën a après buy def euh, présentation bilan mën a jox. Mhm. Sénégalais yi la nga xam ni moom la jëlee ci gox goxaan yi. kon donc da jàpp ni lu war la euh, liggéey yi nga xam ni moom la dénkaane dem saytu ko ci li nga xam ni moo jëm ci gox ak goxaan yi euh, di fàttali rek ñu dikk démb rek. Thierno Ibrahima Ndaw benn l'hôpital ba nga xam ni innoo inauguré na ko fa donc day mel nii moom euh, su ma la déggee muy wax mi ngi bàyyi ginnaaw askan wi nga xam ne ñoo nekk ca ñu euh, ñuy waxee taaxi kaw. looloo loolu ko war loolu mooy li ko war parce que dañ koo dénk. Mhm. te ku ñu dénk yoon la de temps en temps nga wàcc xool lañ la dénk nan ña ngi ko dénk yow personnellement yow mi ñuy dénk réew mi ko dénk moom. Mhm. mu wëlbatiku jël la ko réew mi dénk. Mhm. jox ay pàcc ña nga xam ne ñoom la wóolu. bu dénkee nag. ñu am la ñu taxawal. Mhm. comme li nga ma laaj ci mbiru santé. Mhm. yoon la mu wàcc. Mhm. dem ci base base yooyu xool taxawaay ba nga xam ne dénk na leen lam leen dénk ba xam doxal nañ ko. jàpp naa ne loolu waxuma la maanaam lu ñu war c'est à salué ko vraiment en toute sincérité Sénégal amul opposition bi amul parti au pouvoir amul parti civil ñëpp a war a rafetlu loolu. Mhm. parce que nag ku def lu baax ñu def nga lu baax. Mhm. ku def safaan tamit mën nañ ci dut baaraam ne da nga def safaan. mais ah. man vraiment dama koy rafetlu. opposition bi ñoom dañu ne euh, Macky Sall dafa nekk di préparer ay élections naam dinañ ci ñëw. Mhm. mais yow laxa ngay tontu opposition bi ñoom ñi jàpp ni njiitu réew mi Macky Sall dafay def campagne. xam nga man Cheikh Ahmadou Bamba Diop dama nekk jëmm joo xam ne je suis transparent damay xool dëgg fu mu nekk ma waxee foofu te yàlla rek tax du waxu politique mhm. damay wax te yàlla rek tax ndax dëgg rek la yàlla bëgg mhm. ndax alxuraan mhm. suñu borom déggoo ci benn saar cent quatorze saar yi mën man xaala man amila rek lay wax waxul ko wax ku jëf la wax te jàpp naa ni li muy def nii dafa njortu ni dafa am ñu mu jox ñu jëf. Hmm. dénk leen ñu jëf mu war a dem saytu loolu. kon amul amul lenn politique. non njortuma ne amul amul lenn politique en toute sincérité daray politique nekku ci ku dee nag ak sa bàmmeel quoi man li man li ma concerné. man hmm. xaadim hmm. jàpp naa ni. maanaam lu war la parce que ku ñu dénk tamit yoon la nga dem xool lu ñu la dénkee opposition bi. peut-être ay boroomi xel lañu ay boroom xam-xam lañu. moom président jaar na ci. opposition. en 2011 xam na li ci nekk. kon jàpp ñu wax. c'est normal peut wax waaye moom na moom mi nga xam ni. moom la ñu dénk. Mhm. muy saytu. Mhm. na fexe génne bilan boo xam ni bu la muy jëlee ca la mu la muy xool yi. Mhm. nekk la nga xam ne boo ko tegee sur rek kenn du am lu mu ko sikkee quoi vraiment. alors euh, sëñ Khadim gis nañ fi njiitu réew bi itam. Euh, addu woon na fi génne woon na fi lu toll ci ay milliards quatre cent cinquante milliards ci nga xam ne moom moo jëm ci ndaw ñi. Euh, bëgg leen ko suqalikoo. conseil présidentiel ci ndaw ñi yaa ngi fàttaliku amaloon na ko fi. fële ca diwaanu Diamniadio da nga jàpp ni. bi yoon bu baax bi la ndaw yi mën a suqaliku am xëy waaw loolu damay indi sama benn contribution bu gàtt ci loolu jàpp naa ni président mhm. nit la koo xam ni mhm. war na mën a jox nopp tamit du ma ne askan bi mhm. sax opposition parce que teg nañ dialogue politique je pense que ñëpp a ngi ci biir et opérateur économique yi ŋànk réew mi. Mhm. ak personne de bonne volonté yi ak ñi nga xam ne yàlla dénk na leen ñu xam wàllu xaalis. Mhm. wax def na ko defuma ko amaguma ci ay leeral waaye jàpp naa ne quatre cent cinquante milliards bu ñu ko génnee. Mhm. teg ko ci yoon. te jeunesse bi rek tax ko jóg. ak ña nga xam ne ay ndaw lañ nga xam ni ñu ngi yëngu ci secteur informel. ku mel ni maanaam suñu classe geeg ñeneen ñi nga xam ne ci commerce la ñuy yëngu yàlla dogal. maanaam dañu gëm seen bopp te réew mi ñu ci bëri ay ndaw lañ te ku ci am nañ ña nga xam dañoo am gëm seen bopp di liggéey ñooñu jàpp naa ne milliards yooyu bu ko président tegoon sur table bañ ko jox benn nit que ce soit muy DER ou bien consort woo ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi ci côté maanaam opérateur économique secteur privé yi mhm. ne leen lii laa gis parce que tamit nit bu dee sa réew daf la ñor des mhm. fois indi la nga xam ne day wan ni sax yow da nga cee nduru cuune fekk doo cuune mhm. c' juste que rek pour nga am après bilan bu positif mhm. ne leen lii ma proposé muy millions pour milliards du moins pour mhm. jeunesse bi loo ci xalaat ci wàllu maanaam ndaw ñi ñoom dinañ génnee ay système yi nga xam ne jàpp naa ni buñ ko defee ci xaalis boobu amaana dinañ leen former de telle sorte que amoon na jamono ay formation 3 FPT yi fi jot amoon yaa ngi dégg te nekkoon seen seen seen seen seen seen seen direction nekkoon point point E. Mhm. en face piscine olympique. Mhm. loolu lu baax la. Mhm. ñu jël ndaw yi former leen ci formation bi nga xam ni bu ñu paree dinañ am. maanaam xam-xam. ci quatre cent cinquante milliards yooyu ñu jëm leen ci. tijjil ay bërëb ya nga xam ne dinañ ci mën a jëfandiku maanaam mën ci dimbali seen waajur dimbali ci maanaam seen jaboot yaa ngi dégg nga xam ne lañ leen jox même bu dee lu ñu leen di lebal la dañ koy fay à long terme. Mhm. te pourcentage bi ñu ciy teg 1 pour cent lay doon du bari. ñu def ko mhm. ba mën na bañ a nekk 10 pour cent sax parce que. mu bañ a 10 mu bañ a 10 effectivement. Mhm. ndaw ñi mën ci gis seen bopp. parce que réew mi moom dañuy wax te yàlla tax. képp kuñ fi teg. muy Macky Sall ak ku mën a doon. li ñuy xaar ci yow mooy nga wane bilan bu positif bu positif. bu ko defee même bu ñi tax ñeneen bu buñ taxawee di xalab tamit mhm. j'en ai sûrement certain ni peuple bi ñooy jóg ne vraiment mhm. li ñuy xalab politique la mais na lu baax jàpp naa ne rek moo ci xaw a sooxe ci quatre cent cinquante milliards mhm. ñu politiquer ko maanaam léew yow opérateur itam économique nga tey yan xàll wax nga ko léegi léegi est-ce que euh, mbirum entrepreneuriat itam dañuy jug rek soobu ci est-ce que nekkul yoon itam boo xam ne da nga fa jaar euh, galère soog a mën a jug ci kaw waaw loolu dëgg la man mii jaar naa ci parce que parcelle ga ma dëkk ku yeewoo parcelle particulièrement unité 22 boo waxalee yàlla te yàlla tax rek mën ngeen def micro trottoir xam nañ li may wax abba âge dama daan jàngi wàcci ñëw teg sama bagage jël samay marchandises yu yaay dem di ko jaayal jaayal naa ko presque 14 ans xam naa lan moo nekk ci business xam naa lan moo nekk ci jaay loolu waa parcelle unité 7 via unité 26 HLM Grand Médine mën nañ parce que njëkkee ci commerce xam naa ko mais xam naa ni secteur boobu nekk na secteur bi nga xam ne daal c'est pas facile nag ci ndaw ñi ndax sama classe geeg ñëpp a ci yem koo ci jox xaalis te amul formation j'en ai sûrement certain te formé ko. Mhm. da koy sa kon tàggat bi lu ci am solo la tàggat lu ci am solo la ñu leen. Mhm. jar na sax bu ñu leen former lañ leen di jox. Mhm. ñu superviser leen ca lañ leen former. ñu tijjil leen ci la nga xam ne jàpp naa ni dañ leen di organiser de telle sorte que. la ciy génn di ci ruus. ñu mën ci gis seen bopp. la ca des donte xaalisu réew la Macky moomu ko Massamba moomu ko moomu ko réew mee ko moom mhm. ñu mën ko dellu fañ ko jëlaatee parce que milliards yooyu dama lay wax rek mhm. buñ ko organiser wul mhm. j'en ai sûrement certain ni day seey seey ci la jëm kon ci la jëm ci ci la jëm kanam ok ñu ci dalal tey ki nga xam ne moo di Cheikh Ahmadou Bamba Diop nekk coordonnateur bu mouvement La Patrie d'abord bu Parcelles Assainies bu ngeen bëggee bokk ci waxtaan bi nag da ngeen di def ci 88 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 kan mooy Ahmadou Bamba Diop. waaw avant tout foofu nag euh, balaa ma fay ñëw la ñu waroon jiite sax laay njëkkee di la ko ñaan boo ma ko permettre muy comme que tey suñu borom dëgër na. maanaam dañuy sargal suñuy waajur yu jigéen mhm. adduna bi yëpp yàlla dogal ñuy sargal jigéen mhm. ñu ngi ñaan daal ci barke yontu bi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul bi ñu ma tuddee mhm. yàlla na waajur yu jigéen yëpp am jàmm ba seen jàmm law ci suñu waajur yu góor yi ñu ne ci adduna bi yàlla na leen fi yàlla yàggal taxawu leen sàmm leen ñi demee barzaq ci suñuy waajur yi yàlla na leen yàlla jël yóbbu leen arjanay firdaws ci daraja yontu bi sallallahu alayhi wa sallam waaw Cheikh Ahmadou Bamba boo xam ni maanaam ngi dëkk Parcelles Assainies particulièrement unité 22. Mhm. waaw euh, juddoo nag juddoowu fa ndax euh, ba fa ba ma fay toxu sama papa am fa kër en yaa ngi dégg fekk na boobu ñu ngi Pikine. Mhm. mais maa ngi ñëw parcelle 93 daanaka à l'âge de 13 ans laa ñëw parcelle. kon mën naa ne juddoo ma fa waaye tout temps laa fa ñëwee. Mhm. waaw parcelle nag nekk suñu gox wax dëgg yàlla ñu yàgg fa maanaam jàngee fa liggéeyee fa. ba suñu borom dogal daal maanaam mu nekk suñu dëkkuwaay. Mhm. waaw Cheikh Ahmadou Bamba Diop daal parcelle la dëkk Ekendu parcelle ba tey nga jiite euh, li nga xam ne moo jëm ci mouvement bu ñu naan la patrie d'abord bu Parcelles Assainies alors tey euh, li nga xam ni moom moo jëm ci diwaanu Parcelles Assainies. Mhm. Euh, Parcelles Assainies est-ce que léegi lépp yemb na fa. waaw lépp moom mënul yemb àdduna moom lépp mënul yemb parce que yàlla moo bindee àdduna yemb di àdduna du jag alaaxira rek a jag. te àllaaxira balaa jag sax nga dugg àjjana kon ku la ne àdduna jag na dalay nax mënul jag mhm. mais nag yaa a des yi nga xam ne ñu ci duggee mbala boo ñu ko laajee ñu ci xamee suñu xalaat dinañ ci indi ay leeral lan moo ci dox ak lu ci doxul waaw lu ci dox moom ci ban fànn ci ban fànna parce que dafa yaatu dañuy jël ci wàllum tey pàcc mhm. tey ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum pàcc mhm. Parcelles Assainies pàcc mi fu mu toll waaw pàcc mi fu mu toll yàlla dogal na nag duma ma expert ci mbiru santé. waaye xam nañ ni am nañ maam Abdou moo fa nekk. nooraat waaw est-ce que itam amul yeneen jumtuwaay yi nga xam ni war nañ ko fa mën a teg ngir askan wi bu ñu bëggee faju laata ñuy génn mën a fajoo ci biir commune bi. loolu bien sûr loolu lu mën a nekk la loolu lu baax la. Hmm. loolu lu ñu war a maanaam sax wax ca kaw la yuuxu ko bu ko defee ñu ñu jot ñu ñu jot a dénk. Hmm. ñu yor parcelle. mën ci bàyyi xel ku ci mel ni monsieur le maire Moussa nga xam ni yàlla dogal na moom la ñu teg parcelle moo fa nekk gum en attendant. Mhm. c'est le c'est le maire. Mhm. kon lu jëm ci mbiru santé boo tuddee ay hôpital mën nañ ci indi ay tuuti éclaircissement. Mhm. parce que hôpital Maam Abdou ku ne gis na ni donte am na lu ñu fa def. am na lu ñu fa équipé. mais am na lu des. parce que ñàkkul sax. nit tamit da ngay wax sa diggante ak sa yàlla. Mhm. diggante ak yàlla sa borom subhaanahu wa mhm. gis naa ñàkkul dara ay yàggul dara ay jeunes yu gën di manifester. du ma mhm. tudd nag seen tur. di wane seen maanaam ñàkk. bëgg bëgg. ni hôpital Mame Abdou maanaam nekk hôpital bi nga xam ni tour hôpital la rek. ak tur turu sang bu baax mu yor morgue sax amu fa mbala boog morgue bi bu fa amee climatisation am fa ndax am na ñuy jot. jot wax ni indi nañ fa seen néew. yàlla dogal ci yàqu la doon dem. te loolu lu ko waral ah, mooy garaaw na de. waaw kon loolu nag dañuy dut baaraam monsieur le maire Moussa parce que moom mi nga xam ne moom moo yor commune bi. te diggante hôpital euh, Mame Abdou ak euh, municipal bi daanaka dara doxul seen diggante loolu pour man dégg na ko ba mu ko déggee. Mhm. lu ñuy xaar ci moom mooy. Mhm. def na ko defu ko amaguma ci lu leer. est-ce que dem nga saytu ko itam yooyu itam. waaw yàlla dogal na jotaguma fa dem. Mhm. parce que da ma dimbali sax. dinaa ci bàyyi xel. dinaa ci bàyyi xel ndax parcelle laa dëkk maa ngi dëkk 22 jege na ma. xamaguma nag ba xam bàyyi bàyyi def na ko mais gis naa ne daal jeunesse bi génn nañu ñaxtu nañu te ña doon ñaxtu ñu li ma njortu mooy li leen ñor la parce que tamit. ñu ñu ñu am fugu lañu ñu gëm seen bopp lañu te gis naa ni maanaam la ñuy wax ñor na leen parce que doo bëgg tamit tuumaal nit mm-hmm. maanaam di teg ay mbiru néew ak yooyu te mu nekk la nga xam ne lu sensible la mm-hmm. kon buñ ko waxee rek jàppal ni dëgg la kon foofu je pense que da ngeen di invité monsieur le maire Moussa Sy mu toog fi indi ci ay éclaircissement mm-hmm. man étant jeune étant un jeune engagé ci politique gu parcelle bëgg doon maire parcelle dinañ ci ñëw waa incha allah c'est rek pour wax la nga gën a comprendre dinaa dox ay jéego man personnellement man Cheikh Amadou Bamba Diop. Mhm. dem hôpital Maam du xool ba xam. Mhm. la ñuy ñaxtu am na fa bu fa amee. Mhm. du te dinaa def sama déclaration. boole ko ci samay bilan. bu dee def nañ ko nag ma xamal gars yi nga xam ni kat ñu ngi dox ñaxtu la ngeen doon dox ñaxtu maanaam def nañu ko. ok léegi est-ce que tey euh, maanaam mbirum l'hôpital waruñu ko fa tabax naam. Euh, maire des fois di leen laaj ci ñu ne la amul ñu compétence bi. Mhm. donc est-ce que niveau un hôpital niveau un waruñu ko fa mën a tabax tey Parcelles Assainies. xam nga jëwriñ lii nii waxuma la sax wax mais picc yi doxantu parcelle sax xam nañ lu war a mën a nekk la parce que boo nee Dakar ni dix neuf communes Dakar yi Parcelles Assainies booy tudd dix neuf communes Dakar parcelle dañ koy moom moo ëpp budget ginnaaw ville bu Dakar. effectivement mhm. kon loolu dalay wan ni parcelle du dëkkuwaay bu ndaw. dëkk boo xam ne au minimum y' a plus de trois cent à trois cent cinquante mille habitants. Mhm. waxuma la hôpital war na mën am ñaari hôpital yoo xam ni. Mhm. maanaam dañ koy équiper lépp lu am ci hôpital yu mag yi am ko fa. parce que ñu fay yeewoo maanaam yàlla dogal na maanaam. benn côté bi mhm. yàlla xëy na xaw na leen may ñu mën seen bopp am mais am na côté boo xam ne ils sont diminués mhm. bu ko defee maanaam bu ñu amee ay jumtukaay yu mat ci hôpital yi am fa hôpital yu mag mhm. ñaari hôpital ba ñetti hôpital parce que su dëkkuwaay bu ndaw fa la yeewoo et gis nañ population bi day gën di yokk ku la jox nag maanaam nombre nombre nombre bi nga xam ni fa la parcelle yam ci côté maanaam popularité mën na juum mhm. parce que day màgg mhm. te nit ñi bu ñu fàtte ni ñii dañ fay tuxu si ñii dañ fa dëkk di fa am soxna di fa am ay doom mhm. te loolu amaana mën nañ ci bañ a bàyyi xel mais dëkk buy màgg la kon nañu bàyyi xel que ni lii nga wax c'est à saluer quoi vraiment dinañ ci gën a bàyyi xel te yoon la maanaam waxuma la sax monsieur le maire bi fi nekk mais njiitu réew mi sax yoon la mu bàyyi ci xel parce que loolu mën naa ne liggéeyu état la maire moom li waaw mbirum paj mhm. maire da ciy dox ay jéego rek mhm. waaw mais loolu moom xam naa ne budget maire attanu ko mhm. par participation rek la ci mën a def mais je pense que démarche rek la ci mën a def mais loolu état moo ko war a jël en charge te ñu war nañ ci bàyyi xel quoi ndax dinañ ci dox ay jéego ñun personnellement ba état maanaam war a def incha allah euh, mbirum santé wax léegi léegi itam euh, li jëm ci wàllum infrastructure maanaam xàll am tali yu baax ci biir parcelle naam euh, maire Moussa Sy mu ngi ciy def ay jéego ak ay pavage est-ce que tey euh, parcelle fi mu toll nii waru fa woon yegg. waru woon romb fii tey. waaw waroon na ko we waroon na ko weesu parce que jàpp naa ni foofu damay tamit euh, fàttali monsieur le maire Moussa Sy que ni donte nag ak nu mu mënti demee rek. Mhm. man mii bokk naa ci ñi nga xam ni jàpp naa ni sax maanaam war na jébbal mairie bi. Mhm. maanaam ña nga xam ne ñooy ndaw ñooy ndaw parcelle yi nga xam ni parcelle la ñuy yeewoo bëgg wane ñoom tamit seen ambition ak seen mënin. Mhm. dem jéem a jéem a yóotu leneen parce que 14 ans jàpp naa ni fu ni def ci manaam bërëb. yow da jàpp ni 14 ans yu Moussa si war a def dafa war a euh, able ñeneen ñëw. maa ngi ñëw sa question. Mhm. c'est juste rek pour mën a jaar fii pour mën a ñëw ci yow. daf dafa war a daf maam loolu mooy lu logique parce que parcelle bu ñu waxee te yàlla tax maire bu ñu fi teg man li ma njëkk seetlu mooy yow yaay soxla ñëw ci population bi tàllal leen loxo jaamu leen mhm. jox leen ma ma téyel leen ñu wóolu la tànn ci biir ña dem jongante ji yow sànni la carte wa ilaa ñu de maam conseil yi xool nga doy leen ñu ñu fal la mhm. mais boo toogee ñala faloon ñoom ñooy wëlbatiku la ñu soxla pour ñu ñëw ci yow maanaam lijjanti ko day doon ay jafe-jafe man hmm. jàpp naa ni waxuma la maire parcelle ak maire bu mu mën a doon ak commune bu mu mën a doon ñaari mandat dañ ko war a signé mu doon lu leer ñu voté ko assemblée nationale ministre de l'intérieur teg ci ay con ñu teg ci ay ay ay yu leer ku def ñaari mandat waratoo bokk vote parce que quatorze ans c'est trop hmm. quatorze ans dafa bari ci maire bu mel ni Parcelles Assainies te jàpp naa ni man sama xalaat bu gàtt hmm. Moussa Sy il va xalaat laay wax parce que nit da nga koy xam mais jàpp naa fi ñu toll nii ambition ak li mu jot a ak li muy teg li muy jot a incarné mën na séntu leneen lu dul parcelle quoi mu bàyyi ko ak ñi nga xam ne ay ndaw lañu doomu parcelle mhm. que ce soit ñu bokk parti civil que ce soit ñu doon ay personnes de bonne volonté que ce soit ñu bokk ci ay parti mbala ñu nekk opposition au mhm. parti au pouvoir mhm. gëm seen bopp mën a defar seen am yéene defar seen gox mën a bokk ci jongante yi bu ko defee nag ñëw ku ku ñu ku ñu tànn rek maanaam ñu jiital la nga jéem a wane sa sa bopp daal. tontu woo sama question bi xëy na da ko esquiver. Mhm. mais maanaam mbirum infrastructure yi loolu noonu dinañ ci ñëw. Mhm. Euh, infrastructure yi ci biir parcelle est-ce que tey euh, waruta mun a am yokkute. waaw loolu moom war na mën am yokkute parce que jàpp naa ni bu naan infrastructure. Mhm. lu ci bëri mën nañu wax euh, côté tali tali tali yi nga xam ni yàlla dafa dogal mu dugg ci koñ yi duggante ci koñ yeeg yooyu ak pavage beeg yooyu. Mm-hmm. man jàpp naa ni daal euh, lu ñu war a mën a yokk la. Mm-hmm. parce que boo xoolee lu mel ni pavage yi. Mm-hmm. mën naa ne bañoon ko fa def sax moo gën dinaa la wax lu tax. ah lan moo tax waaw parce que boo xoolee pavage yi. ñaari unité rek mën naa ne la gën a fës. muy unité 22 bi ma dëkk. ak unité 18. te unité 22 li may wax. monsieur le maire Moussa Sidibé Weye parce que campagne yi ànd nañu campagne ba muy dugg sama koñ maa ko jëli ñoo ànd mu may xamal ne ma pavage yi fii mu yem dina dugg ba sa koñ ma xamal ko ne ko gis nga waxuma la sama koñ fa lay wàcc duggee suñu koñ da leen sonal waxuma la dañuy sonal mais ku fay yeewoo ku ne bu nawet jotee da tiit parce que ndox yi ci biir kër yi la jëm te bu duggee ci biir kër yi maanaam foos bi ball day ànd ak ndox bi te loolu mën na créer maanaam xeetu tawat yi nga xam ni mën naa ne bu boobaa moom il sera responsable parce que man signalé naa ko ci élection présidentielle yi mhm. ba mu xamal man ma fii pavé dafiy jaar mais c'est valable pour unité yëpp mhm. parce que jàpp naa ne ñu pavé unité 22 pavé unité 18 mhm. yaa ngi dégg bàyyi yeneen unité yi ak suuf si ni mu mel parcelle nga xam ne day màgg nga xam ne da daan gis maanaam. jumtukaay. mais pavage tamit est-ce que du solution itam bu ñu demee ba dëkk goo xam ne suuf bi dafay gën a bëri pour ay oto nga xam ni dugg si xàll yi sax problème lay doon. waaw xam nga pavage. moom lim ci mën mooy rek wut partenariat bu mel ni Promoville waxtaan ak ñoom ñoom tamit ñoom seet ay experts yi nga xam ne yàlla may na leen. ñu xam mbiru suuf. Mhm. xool pavé bi pavage bi tey fu ñu koy teg parce que du question teg pavage rek parcelle mu rafet mais nañ xool ba xam fu ñu koy teg di ko fa instauré. Mhm. foofu war nañ ko fa teg parce que am na fa nga xam ne ñu ngi ko fay teg te canalisation moo fay jaar. Mhm. tey boo ko fa tegee na ko tegee baaxul te pant bi na mu war a demee baaxul amaana. bu ndox mi baree ba yenn kër yi xaw a bloqué. yaa ngi dégg seen fosse yi xaw a bloqué bu balee génn ci ci ci centrale bi nekk maanaam ci intersection diggante jàkk Imam Ndiaye ak maanaam. boutique boutique bi mhm. da ngay gis maanaam bu ballee maanaam day rejeté maanaam ci yeneen kër yi dugg ci miir yi mën na sax jaar ci fenêtre yi mhm. te loolu lu koy waral mooy bëgg defar certes baax na mooy même booy defar demal wut ne jot nañu xam mhm. mbiru xam pavé bi fi ñu koy teg jar nañu teg fa bu dee dañuy wuti ay oto ndaraan ñu ñëw si xool nuñ koy organiser ba nga xam ne bu ñu ko tegee maanaam du mujjee doon maanaam xam nga rek maanaam yàq quoi vraiment ok xool ci loolu itam yaa ngi doon euh, junju li nga xam ni moom moo jëm ci nawet Euh, léegi ñu dugg fa est-ce que matuwaay yi yu war mairie bi mu ngi koy jël ngir mën a gàttandu miir bi balaa ñu fay yegg. waaw euh, ñëwaatal ci question bi nga ne. gàttandu li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum taw bi xam nga yàggatul. Mhm. incha allah dinañ jëm ci nawet. Mhm. est-ce que jotul itam yaa ngi ko doon junj léegi ñu jël matuwaay. Mhm. laata ñu fa yegg itam ñu bàyyi loolu xel. mais je pense que loolu waxuma la bàyyi xel sax day actuellement fi may wax day day priorité. Hmm. parce que comment dirais-je nawet bi passé. Hmm. man mi di wax ak yow sama kër dafa taa ba dell. sama ndox dama ne la ndox buy taa unité 22 sama koñ lay dugg loolu waxuma ko pour waxu politique. nañ ci bàyyi xel bu nawet hmm. jotee ñu ñëw fa. dafay dugg parce que foofu dafa suufee jëm poste de santé bi. Seydi Jamil. mais waxuma la bàyyi loolu dès maintenant lañ ci war a dox ay jéego. maanaam xool des canaux yi nga xam ne fa lañ mën a jaar. fu mel ni bind bind bind bataaxalu ONAS mhm. maanaam ñu mën a ñëw ñoom seen mhm. experts yi saytu loolu xool yan condition la ñuy teg mhm. pour mën a lépp loo xam ne day fatt day fatt parce que day bouché des te mën nañ toog lu mat ay quatre ans cinq ans kenn du débouché fosse yi doo fa gis sax oto ndaraan wala maam lu xeetoo xeetu oto yooyu fa ñëw maanaam vidé fosse yi parce que mën nga toog quatre ans cinq ans doo gis ñu vidé fosse yi te loolu liggéeyu mairie bi am na ci part de responsabilité parce que moo ko war a saytu population bi nag ñoom lu ñu mën rek mooy yuuxu mais mhm. ñun comme que jot na bokk mhm. ci tamit suñu bilan bu ñuy présenté mhm. j'en ai sûrement certain que ni incha allah dinañ ci dox ay jéego bu ñu xëyal mu ngoog léegi euh, gis nañ wax nañ ci wàllu infrastructure parce que li muy ñàkk ndox bëri na de waaw lu muy ñàkk ndox bëri na mais ku waxal yàlla yeneen unités yi moom mën naa ne comme que dañuy doog a jóg jotaguñu dugg ci yenn unités yëpp parce que nit tamit da ngay wax te yàlla tax pour maanaam saytu seen wàllu ndox mais 22 moom bi ñu dëkk na mu daan coupé ndax man sama kër maa koy fay maay fay ndox sama kër man ak sama mag mais xam naa ni ndox bi foofu noonu wàññeeku na bu baax. Hmm. vraiment hmm. wàññeeku na bu baax a baax a baax. Hmm. parce que ndox bi foofu na mu daan tëjee robinet na mu daan tëjee mën naa ni durant un an yii yëpp. gis naa ni vraiment maanaam arrêté na ko léegi am na amélioration. am na amélioration bu yaatu wax dëgg yàlla ci côté ndox bi parce que loolu moom waa unité 22. Mhm. seede nañu loolu quoi. Ah. ndax doon tëjee moom vraiment. Mhm. man ndax man damay soxla ndox sax des fois du jar may wàcc suuf damay toog ci kaw rek robinet bi tijjee ko quoi vraiment. ok léegi euh, jumtuwaay infrastructure maa ngi ko doon wax maay mais am na benn boo xam ne. Euh, fan yi gis nañ fi askanu mouvement nawetaan bi mhm. génnoon dem ca diwaanu stade ba Mm-hmm. stade boo xam ne ñu ne ay ati at ñu ngi koy tabax ba léegi mënut a pare. Mm-hmm. alors jeunesse bi ñoom ñu ne dañu soxla fu nu foo xam ne dañu war a mën a dañ fa war a dallu di fa fubal donc ay at ñu ngi koy wax ba am matar ba annoncé woon na fi sax ne yàggul dinañ ko daal di inauguré ndaw ñi mën a jotaat stade bi waaye boobaak léegi dara euh, naka nga ko gisee en tant que ndaw itam. waaw na ma ko gisee mooy. ndaw ñi ñoo nekk ci dëgg parce que dañ ko bëgg politiquer je pense que sama njort dañ bëgg bàyyi ba élection yi peut-être jege xanaa ñu ñu ñu ñu doo ko inaugurer. ci fa ci faveur kan nga jàpp ni. no mais ci mais mais ci faveur ci ci ci ci faveur parti pouvoir parce que loolu mais maire yi attanu ko nit da transparent wax dëgg te yàlla tax. Mhm. parcelle budget parcelle attanul stade bu doy noonu mën na ko tàmbali mais du ko yeggali. Mhm. te ku ne gis na ni. kon yoo xam nga du yegg. man non ni ma jot a gisee travaux yi. Mhm. dama fa jaar njortoon naa ne sax heure bi waroon na mën a pare bu yàgg. mais ba gars yi génne rawatina jeunesse bi wane seen ñaxtu ci nga gis ni sax commencé nañ ci dox ay jéego mhm. mais fii may wax ak yow yàlla xam ne ni waroon na pare bu yàgg ba ñu libéré ko maanaam xam nga rek jeunesse bi mhm. bu ko defee ñu fay def seen tàggat yaram naka nga gisee jeunesse parcelle bu ñu waree fubal di dem ba ay stade Pikine euh, di fa dem di fubal ak nga am terrain boo xam ne ay at ñu ngi koy tabax mënut a pare euh, donc loolu jeunesse bi dañuy dem ba mel ni ku découragé mooy li ma la expliqué léegi wax ji mooy ñëwaat c'est juste pour te que dañ ko bëgg politiquer pour man mais nañu libérer stade bi jox ko jeunesse bi du ñàkk nag mhm. du du yàq dara mhm. ci seen politique bi ñu bëgg doxal peut-être ñoom j'en ai sûrement certain que ni mhm. bu ñu ko teeloon libérer sax jeunesse bi man xam naa ni bu boobaa bu ñuy def seen bilan li ñu jot def parcelle mën nañ ko ci boole mais buñ naree bàyyi ba élection yi jege. mu a rek indi ay ay ay ay ay xëccoo ay xeetu maanaam xam nga rek. Mhm. détail jàpp naan loolu la ñu gën a tal sax ci stade bi. te bu boobaa dinañ gàllankoor jeunesse parcelle parce que du yegg. ok parcelle ak ay kàngamam Moussa Sy Amadou Ba ñoom ñëpp tey ñu nekk ca bërëb ba est-ce que jàppoon ni woon ni tey am infrastructure nekkin bu ñoŋ. waroon na gën a mën a yomb tey. waaw loolu je pense que sama xalaat bu gàtt ñoom ñoo gën a placé pour wax ko mais man mën naa ci indi ay synthèse yu ndaw rek. Mhm. ndax euh, le ministre d'État amatu Ba miinuma ko à cent pour cent yàlla dogal na xam naa jot nañu bu ñu xamante ñaari yoon la ci ndigalu sama kilifa Cheikh Seydi Aboubacar Mbengue dinañ ci ñëw ci fin bi. Mhm. waaw joxoon ñu ndigal jamono élection yi dem topp ci ginnaaw ba mu nekkee le coordonnateur de Dakar. Mhm. gis naa nit ku dal la vraiment dëgg la yàlla bëgg nit ku am écoute la te maanaam nit kuy dimbalee la parce que gis naa parcelle ña nga xam ni dimbali na te ñaareel mooy ñamu dimbali ñooñu dañ ko seede rek te yàlla tax ma jot ci kon loolu c'est à saluer mhm. jàpp naa ni nag ña ànd ak moom parce que tamit dañuy wax li fi nekk xeetu kuréel yooyu bu ñu ko waxee ak buñ ko xul maanaam y a des tendances ci biir mhm. maanaam en toute sincérité ku ne mhm. am na ko àndal ou bien ku ne am na ko far loolu sax dinañ ci ñëw loolu dinañ ci ñëw c'est juste que rek wax la mais nag bu yàlla dogaloon ñu organiser ko de telle sorte que maanaam xam ni parcelle parcelle lu ñëpp la ku nekk jàpp ci ku ci ku ci jàpp ci xam ni defaral tax a jóg du la ma lay wax sànq rek yàlla du fay wax bàyyi jëf bu boobaa moom ña jëf rek mhm. incha allahu rabbi la ñu jëf ña ko mhm. gis tamit loolu la ñuy wax quoi ok euh, dafa am benn leader bu nekk foofu ci diwaanu Parcelles Assainies Go Faye Pape Kory mhm. Faye euh, fan yi defoon na ab conférence de presse mu ne euh, Moussa Sy dañ ko war a exiger ngir mu def benn bilan citoyen parce que dañ ko fal bu ñu ko falee nag faaw nga wax atum 2014 ba ba si yàlla tey la nga def mu wax la ko te yéen ñi nga xam ne ñoom ñoo di jeunesse bi ñoom ñoo ko war a exiger maire bi pour mu jox leen ko tey ndaxam moom ànd nga moom ci xalaat googu parce que ku ñu fal itam war a war a war a joxe bilan. vraiment c'est à parce que xamante wuñu jeune la ni man et jeune bu ambitieux la comme man. et gis naa ni am na encrage politique bu am solo Parcelles Assainies parce que. suivre ñu ko sax à 100 pour cent mais de temps en temps ñu dajee unité 11 may dem sama groupement de femmes yi ne foofu. Mhm. fa la fa la fa la siège nekk damay gis xeetu liggéey bu am solo bi ñu fay def ay nitam. Mhm. te yorul benn poste de de responsabilité nekkul ci nguur. moom goo fay waaw nekkul ci nguur. Mhm. te mu ngi def ay action ak ay moroomam yi nga xam ne yoruñu nguur. mel ni moom ñooñu waxuma la sax def bilan mais monsieur le maire bu defoon bilan ba pare da boole ci biir bilan bi lettre lettre bi nga xam ne remerciement lettre de remerciement sant leen gërëm leen ngir maanaam bu yàlla dogalee maanaam muy génn par la grande porte du am benn problème incha allah. kon da jàpp ni ayam jeex na dafa war a dem. non loolu kenn kenn kenn kenn kenn waxatu ko moom xam na loolu. Mhm. moom xam na loolu parce que li muy ko xool ni mu ni mu ni muy politiquer. Mhm. ñun ñu dëkk parcelle xool ancrage politique moom tamit bu mu am. Mhm. ndax tamit nit tamit du ma ne da nga bëgg mu jugee fi ou bien dafa jeexal rek doo wax maanaam lu mu def. c'est un homme politique moom maanaam fexe na ba góorgóorlu. Mhm. am parti boppam. Mhm. muy ANC am ñu ko gëm. parce que mu koy wane ñu ko ñu mu ngi koy wane ñu koy suivre. Mhm. mais yoon la nag bu dee il est ambitieux politiquement et que bëgg na réewam. na bàyyi mairie bi ndaw ñi jongante. ñu mu transparent mu dem yootu ji leneen. parce que tamit bëgg toog ci mairie rek jëmale jëmale jëmale jëmale. lu kenn xamul loolu tamit euh, bu yàggee mën na créer leneen daal. loolu lay ragal. ok mais est-ce que tey laata ñuy ñëw ci sa ambition personnelle. est-ce que mën nañ xaar yow Cheikh Ahmadou Bamba Diop. ak Pape Kory Faye ñu naan ko Go Faye ak ñeneen leader yi nga xam ne ñu ngi ca Parcelles Assainies eh, ngeen boole seeni doole mën a demandoo si jongante yi. loolu mënaguma ci tontu parce que man dama nekk ci kuréel goo xam ni dañ ma tànn teg ma fa. waxtaanagoo leen ci waa muy mouvement La Patrie d'abord suñu coordonnateur au niveau national may nuyu. Mhm. muy Seydina Omar Mbengue maanaam euh, di piloter mouvement bi au niveau national. Mhm. moom moo ñu joxaat ñu. ñu toogaat parcelle yoraat lii di liggéey bi. Mhm. boo ko ak Cheikh Seydou Aboubacar Mbengue Ndeye ak Baye. Mhm. te ñun ñoo ko tànn sax jiital ko ndax moom il n'est pas politique. Mhm. c'est un technocrate vraiment ma koy nuyu ci confiance bu mu amaat ci ñun ba dénkaat ñu parcelle. ñu koy doxal bu ñu yeggee ci loolu rek mu war a nekk incha allah man amul lu may décider. man yàlla dafa dogal dañu organiser ñun. et ñoom ñoo fi suñu kilifa ak ñoom doyen Amadou Moustapha Guèye le coordonnateur du Euh, Mermoz Sacré-Cœur ak Ousmane Diogou Faye mi nga xam ni ñoo bokk parcelle mais moom dañ ko yebal mu dem jas mhm. politique yi foofu nga xam ni dëkkam la buñ ci amee consensus rek loolu war a mën a nekk rek ñoom ñoo koy décider quoi amul benn problème. ñu ñëw ñu ñëw ci say ambition personnelle. mais es ce que xam nga ni tey élection euh, coalition moo koy gagné du benn nit rek moo koy gagné itam. Mhm. waaw loolu dégg naa ñu koy wax mais mënaguma ci am lu ma leer tant que demaguñu ndax ñun ñu ngi ci base bi di liggéey. et que li nga liggéey wane na ni mën nga dem yow kese gagné élection loolu dama ne mënaguma ci wax ndax li tax mënaguma ci wax mooy mhm. li ñëwagul moom dañ koy bàyyi ci loxo yàlla nañ ñaan yàlla rek yàlla mi yor baqan bàyyi ñu fi mhm. Mhm. ñun dèjà daal ñu ngi ci terrain bi la fi Cheikh Mbengue bàyyi woon muy la patrie d'abord groupement de femmes yi nga xam ne ñoo nekk ci unité yi ak maanaam jeunesse bi nga xam ne yàlla dogal na ñoo ñoo àndoon ak moom man ma xam leen jiite leen maa di leen saytu di waxtaan ak yaa ngi ci terrain bi maa bi maa ngi ci terrain bi ku ko ku ko xam maa ngi ci terrain bi ku ko xamul maa ngi ci terrain bi ndax nëbbatuuma mhm. ndigal laa ci am et que satisfaction la pour ma wane ci buñ ci yeggee mhm. que ni gëm nañ ma lañ ma jiital def naa ci la ma ci war a def nga ne danga am ambition mhm. bëgg a jiite Parcelles Assainies fan nga war a jaar tey ba suqali gox boobu fi ma war a jaar c'est très facile ndax jàpp naa ni ah mairie mairie yombul de sëñ bi waaw mairie yombul ndax euh, sëñ Abdoulaye Mbacke mu baax mi daan na wax ni bëri pexe sax ju jub da ko gën gis nga nit bu jubee mën na lu ne nit bu njortee ni jub na rek mën na lu ne te pour man gérer mairie moo gën a yomb ci yow pour man gérer mairie ak gérer sa kër gérer sa kër ñoo yem waaye mairie diis na de dama la wax lépp na tënku rek mhm. ci jub te nga transparent yow mi nga jiital ña la jiital muy population bi nga xam ne ñoo la fal nga jox leen nopp di leen déglu mhm. fexe tamit ña ngay jox poste mhm. de responsabilité mu nekk lu transparent tey bu yàlla dogaloon mairie parcelle tàbbi sama loxo fan ngay jaar ba suqali parcelle. loolu fi may jaar c'est très simple. Mhm. fi may jaar c'est très simple am na ay kilifa maa ngi waxtaan ak ñoom ku ci mel ni seen Omar Mbengue seen domaine la et sama expérience ma ci am mooy xam naa ne mairie am na budget. Mhm. mairie am na benn représentativité bi nga xam ne am na liy génn ci unité ci ci ci quartier yi. Mhm. di dugg ci keesu mairie. j'en ai sûrement certain que ni budget mairie ëpp na deux milliards et quelques. bu ko amoon du ñàkk di nga lancer des partenariats yi nga xam ni. da koy génn dem wuti. indi ko. def ko ci mairie bi mu nekk lu transparent nga may nag ñi nga xam ne ñoo la fal vi bët ñuy saytu maanaam. kon yow pare nga boo nekkee maire nga nangu ñu lay saytu. nañ na na tàmbali bu ko yàlla dogalee bis bu ma falu parce que looloy sama xeex looloy sama ambition loolu laa gëm. Mhm. man Cheikh Amadou Bamba lañ ma tuddee sëñ Tuubaa lañ ma tuddee direct. Mhm. aw ma ci nëbbatu bu ma nekk bu ko yàlla dogaloon loolu ci jëmi boppam mooy am budget bi day nekk budget bu transparent mhm. lépp luñ ciy def. dañ koy waxtaanee donte signature a koy génnee. Mhm. dañuy dañuy voté maanaam kuréel goo xam ni population bee leen di tànn. jar na mhm. unité 7 via unité 26 Ahlem Grand Médine fu nañu jël fa kenn. mu mhm. jaaree ci ci ci ci ci chef de quartier bi. ou bien mu jaaree ci maanaam bàjjenu gox yi ñu organiser ko. ba am ci consensus. jël leen dugal leen ci biir mairie bi. ñu bokk ci ñuy saytu liggéey bi. bu ko defee maanaam. maire maire bi moom ci personnellement bu deful bilan ñoom ñi nga xam ne yàlla dogal na. ànduñoo ak maire ci côté politique. mais saytu gox bi leen tax a jóg ñoom dinañ mën a def bilan bi nga xam ne du jar sax maire di ko def. su ma la déggee mooy transparence moo war a moo bëgg nekk sa lu njëkk boo jëlee mairie ba. bu ma nekkoon maire loolu laay njëkk def bu yàlla dogaloon ma nekkoon loolu laay mooy fexe budget bi transparent képp ku soxla xam fu muy dugg fu muy jaar ba xaalis di génn. Mhm. xaalis di dugg. ña koy saytu ña ci bëgg am accès. Mhm. ñu teg ay kanu yi nga xam ne dañu leen koy yombal yàlla dogal ñu koy def. Mhm. loolu moom lu leer la parce que position ma jóg duma ma ci position bu ma jël du ma ci jóg. Mhm. loolu laa gëm dëkk lu koy defar ay ndaw la. dëkk lu koy defar conviction la. dëkk lu dëkk lu koy defar dëgg la. bàyyi nag yàlla mi yor mbir mi. mu def le choix quoi vraiment. mbir mi dix millions la de ndax am yow fàggu nga dix millions pour mën ko teg ko ci caution naam euh, ministère de l'intérieur génneegul ba tey bataaxal buy wane ni dinañ fay fukki million mais dañuy jàpp ni euh, li nga xam ni moom moo jëm ci élection yi nga xam ni moom la ñu weesu woon ci àpp boobu 10 million ndax jàpp nga lu yomb la euh, fay ko caution war a mën a dem bokk ci joŋante yi. loolu dama koy dégg rek ndax jot naa dégg sax ay kàddu ñu ne loolu. ministre de l' intérieur. waaw ah, moom laa lay wax ni amul bataaxal bu bu wér te wóor bàyyeekoo ci ministère de l' intérieur. waaw jàpp naa ni. Mhm. loolu su dee dëgg man jàpp naa ni diis na. Mhm. ci ngir ku bëgg présenté wu sa gox maanaam tàllal leen loxo. Mhm. ngir ñu dénk la la nga xam ni mooy seen mairie. pour man dix millions. jàpp naa ni dafa bëri dafa bëri. waaye nag. war jaruñu koy yombal mais boo demee ba am ambition war a gérer lu war ci ay milliards. Mhm. xëy na tam yow itam ba nga ne euh, parce que tam dix millions naam participation la waaye li nga nar a campagne moo war a ëpp dix millions kon donc génne bi est-ce que war na jafe foofu. waa xam nga ku ne ak euh, ku ne du la wax euh, nu mu paree pour campagne ku ne du la ko wax. parce que yow sa campagne doo si jël wax j'en ai sûrement kuy dem guerre. Mhm. doo doo fësal ni ngay demee guerre mais xam naa ni daal maanaam. politique. Mhm. rawatina politique de développement ak lu Cheikh Seydi Aboubacar Mbengue jàng lu mu ñu jàngal ñu daan ànd ak moom. Mhm. du gëndoog moom parcelle gis na mu daan liggéey tànk ya mu jëloon duñ ci teggi benn parce que nag di wuutu nit koo xam ni. nit ku dëggu la woon nit ku jub la woon. Mhm. nit ku bëggoon lu baax la woon mësta lekk guerre mësul bëgg maanaam lu dul lu transparence kooku bu lay dénkee nga ànd ak moom ba ba muy ba ba yàlla di def li gën. yaa ngi ànd ak moom. kon jàpp nga ni bu dee danga bokk ci ñi war a yëkkati flambeau bi. Mhm. ngir maanaam mu nekk ku ñu dul doot ku ñu dootul fàtte ba fu ñu la tuddee tudd ko. Mhm. da ngay fexe yow lépp looy def ger bañ ci dugg. def loo mënul bañ ci dugg wax ak askan wi ci dëgg. Mhm. wax leen li nga xam ni moo am. bu ko defee buñ la wóoloo dénk la dénk la. buñ la wóoloo tamit nga xam dëgg nga ko lal. ci dëgg laa ko lal. moo tax xooluma ci ma Samba xooluma ci ma Demba yàlla laa ci jiital ci dëgg laa ko lal. te képp ku defe ne. ni damay génnee xaalis di ko campagne mbal di la ko jox bu hmm. yeboo bul ànd ak man ci dëgg laay dox ndax je suis trans noonu loolu laa xam loolu laa xam effectivement mais Benno Bokk Yaakaar nga bokk yow nga ne da nga fësal sa bopp ni dangay ngay candidat nga mhm. xanaa waxtaan amagu ca wala parti ba euh, ca Parcelles Assainies moom xanaa ci tasaaroo la jëm yow nga ne dangay dëggal sa bopp waaw xam nga nit ku ci nekk mhm. bu la neexee war nga am ambition à condition nga am kilifa yi nga xam ni matee nañ ko nee naa la sànq dama am ay kilifa. dëgg la waaye coalition Benno Bokk Yaakaar. Mhm. bu doon man sama coobare bopp man man rek ma moom sama bopp man. Mhm. aw ma kilifa ci politique. Mhm. fii may wax ak yow dama ciy génn. ah waaw dinaa la wax lu tax buñ ci yeggee. waaw ah, lu tax waaw lu tax mooy jàpp naa ni amul ku ma fa ëpp mérite. te li may wax nañ tëjji micro trottoir parcelle. buñ ko weddee ma indi les faits parce que seuls les faits sont révolutionnaires mm-hmm. li ma la wax bu ci nekk jëfam maa ngi ak moom te lépp ci coalition benn Bokk Yaakaar la bokk nañu njëkk monté comité 2012 parcelle APR APR mm-hmm. donte bokkuma fa parce que man mu musuma bëgg injustice ba ma gisee ni président Macky Sall mm-hmm. génn assemblée nationale ñu koy buntu xataal mu réduire mandat de bëgg réduire mandat am de cinq ans yóbbu ko un an mu gëm boppam gëm yàlla wane njàmbaar bàyyil ay privilège am génn dem ba yàlla jox ko li mu ko jox. Mhm. bokk naa parcelle ci ñi nga xam ni li may wax nag jëlum waxuma ngir damay wax te yàlla tax. Mhm. parce que les faits la bokk naa ci ñi nga xam ni liñ ko mënoon soutenir mooy montel ko comité unité 22. li ci gën a yéeme mooy sama comité nday Marème Badiane nday Binta Gassama ñoo ko monté ñoo ñëw ba parcelle jóge Sacré Cœur ñoo monté sama comité. lépp a ngi fii kon yow yàgg nga APR. wa woon APR mais xam nga li may wax APR falul président Macky Sall dañuy wax li fi nekk président li ko li tax mu accéder au pouvoir du APR. kon kon ñu structuré ko. li lan la lan moo ko fal. li ko fal coalition la. yaa ngi dégg coalition Benno Bokk Yaakaar mu nekkoon coalition maanaam. coalition Benno Siggil Sénégal la woon mais ñu def coalition Benno Bokk Yaakaar. Mhm. te du coalition Benno Bokk Yaakaar bi kese parce que am na partie civile yi nga xam ne bokkuñu coalition Benno Bokk Yaakaar jàppale nañ ko. Mhm. am na ñi nga xam ne ay personnes de bonne volonté jàppale nañ ko. Mhm. ñu yoroon mouvement. ñu mel ni ñun jàppale nañ ko te pourtant bokkuñu APR. kon ñi ko jàppale ba mu accéder au pouvoir. maanaam ay kuréel la waaye boo xoolee ni mu demee nii. dafa mel ni coono gañ ga nga sonnoon yow maanaam. fayuñu ko bu bu boo nee fayuñu ko day mel ni pour sa poste la mais ils ne sont pas reconnaissants ci côté boobu te gis naa ña nga xam ni jàpp nañu ñu ëpp mérite te dama ne la foofu amul ku fa yeewoo man ku ma ëpp mérite na génn wax ma génne les preuves wane ko parce que te du preuve boo xam ni. Mm-hmm. preuve wax la ay jëf la parce que boo ko xoolee texte bi di nga xam ne lii. lu nekk la dama ne la mm-hmm. amul lu ñu defal président parcelle te participer wu ma ci. Mm-hmm. wane ma ci njàmbaar. kon donc tey bu doon tey génn. Euh, coalition Benno Bokk Yaakaar da ngay génn mais da nga am kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ngay déglu. muy sama kilifa Seydina Omar Mbengue nee na la suñu mouvement ni mu structuré woo maanaam doon jël say décision personnelle moom laa lay wax waaye teewul nag mhm. lii mhm. bañ ko sàkkoo waxtaanee ko dañ ma ko nangul mais buñ demoon suba naa dellu ci coalition bi ci seen digal dama koy def mais dama ne la bu doon ci man la aaju mhm. du ma dugg du ma bokkaat ci coalition parce que 2012 ba 2000 ba 2019 nga ànd ak ñoom xeex ak ñoom nga gis bu ñuy wanee njàmbaar di wane njàmbaaru nit ak ay du mën sax nomination. Mhm. di ko defee noo xam ni yow da ngay xam ni. Mhm. maanaam feeñ maanaam du sax yoon. Mhm. parce que président bu ñëwee ba parcelle tudd la. sant la gërëm la ci sa liggéey. ngir jëmi Cheikh Seydi Aboubacar Mbengue te ba mu koy def Amadou Ba ministre d'État mu ngi yoon ci car bi Moussa si mu ngi fa. te doo dégg ñoom ñu tudd ko te xam ne mouvement la patrie d'abord Cheikh ma ngi teg ko parcelle def na fa lu ne mhm. kon loolu c'est juste que mhm. maanaam manque de reconnaissance la loolu tax man la bu doon ci man la aju du ma ànd ak ñoom ok kon tey bu ma la déggee mouvement euh, pour la patrie d'abord yaatu na ci biir parcelle unité 7 ba unité 26 via HLM Grand Médine fu ne am na amoon nañ fa représentant demaguma nag fépp waaye commencé naa jox dox sama jéego dem seet ña nga xam ne mhm. ñoo daan ànd ak Cheikh ce que yéexul yéexul déedéet yéexul parce ci dëgg la ñu dox dama ne la la ma daj parcelle ci politique coono. bu doon ñeneen laa ñu bëgg xaalisu ger mbala wane seen bopp mbala bëgg lu dem seen bopp. heure bii waxee nañ ko fu ne te ay preuve la ñuy indi te kenn du ko weddi. mais mosuñu ma dégg sax ñoom may wax ci lu jëm loolu. Mhm. parce que xam naa ne bis dina ñëw. Mhm. dina ñëw dinaa dëggal sam bopp parce que ku gëm sam bopp laa. te gëm naa ne yàllaay joxe ndam. ok est-ce mën nañ xaarandi euh, ñu recoller recoller morceau yi euh, waxtaan mën dox seen diggante ak ñooñu ngir mën a dem demandoo ci élection yi est-ce que dama yaakaar ni kat élection boo ci dem bu unité amul kat lajj moo ci am man li ma gëm daal mooy maa ngi ci base bi di liggéey. ok maa ngi ci terrain bi comme samay morom di liggéey. Mhm. am na samay morom yu mel ni man bokkuñu APR bokkuñu ci coalition bi bokkuñu ci benn kuréel ay jeunes yu ambitieux la ñu c'est à saluer ñu ngi parcelle di liggéey ñoom tamit nekk seen coin. Mhm. loolu c'est à saluer nit da ngay gëm sa bopp. Mhm. baaxul nit des fois boo demee ba gis ne yow am na loo loo bëgg. ngir sa gox te yàlla rek tax nga wet làmb sa xol xam ni li ngay def yàlla tax nga koy def bul xool ma sàmb bul ma xool ma dem ba def ko. Mhm. loolu c'est à saluer. mais dama ne la actuellement li ma gëm daal mooy maa ngi ci base bi di mhm. liggéey. Mhm. te fépp fu ma xam ne ma fa demee. convaincre leen ñu ànd ak man dinaa ko def. bu ñu yeggee nag ci élection yi lu yàlla def ma xam ne loolu la yàlla def. ok léegi euh, ci élection yi. Amadou Ba naam tuddaguñ ko ne am na ay ambition ci élection locale yi nit ñi ñooy fësal kàddu googu rek euh, Moussa Sy moom itam fësalagul nii dina nekkaat candidat waaye xëy na bëgg na ko am na Moustapha kan dafay jiite mouvement foofu am na Pape Cory fay dafay jiite mouvement foofu am na ñi ñuy wax ay bokkar Jong ñoom itam ay nit lañ yi xam ni bëgg nañ euh, jiite parcelle Cheikh Ahmadou Bamba list bi gudd na de ndax dina yomb. man dama lex benn secret. Mhm. et que je vais droit au but. nga coalition benn boo ko yaakaar parcelle ci yoon bu ñu doon tànn. Mhm. jeunesse bi la ñu war a tànn jox leen ko parce que dañuy wax te yàlla tax ku ci nekk ci ñoom. Mhm. jot nga yor responsabilité. fàtte naa Mbaye Ndiaye. dama ne Mbaye Ndiaye nit ku baax la. nit ku baax la parce que yàlla dogal na mouvement Cheikh Meng invité nañu Dakar këram jamono avant élection présidentielle di ci di ci ñaanal suñu waajur bu góor moo nekkoon le président des sages gaañu na ak suñu président Seydina Omar Mbengue moom fekkee na ko def nañ délégation bu am solo dem këram seeti ko nit ku baax la nit kuy nit ku bëgg lu rafet la parcelle moom monsieur Mbaye Ndiaye monsieur ministre d'État nit ku baax la mhm. dañuy wax rek ndax loolu tax sax mu nekk nit ku gaaw a jooy parce que nit ku baax la mais dama ne la coalition Benno Bokk Yaakaar bu dee dañuy wax parce que booy bu dee yor nga nomination li ngay génnee di nga xam foo koy wuti mais jeunes yi nga tudd ku ci ne sa propre fond ngay demee ci lu ma njort. Mhm. yaa ngi dégg amoo responsable yoro benn responsable bi ñu daje daje war a am nañ jël jeunes yi jiital leen bu ko defee dooleel leen. xam nga laaj naa la ko sànq. moom laa la wax. ndax yéen a ngi ciy liggéey wala yéen waxtaanagoo leen. ci dara xam nga loolu tollooguñ ci. mënuñu ci wax. ah déet gars yi ñu ngi waxtaan ci ruq de. waaw loolu mën na nekk yow loolu nga foog nga foog gars yi dañuy clignoter gauche peut-être jàddu droite loolu man amu ci lu ma leer mais man daal li ma xam mooy man sam bopp ma ñor. que yow dencoo am ma bañ a wax de waxtaan euh, ak ay mouvement yu dëgër ci biir euh, commune bu Parcelles Assainies wala da nga may nëbb. Euh, da nga politiciens yi ñoom du ñu wax lépp. man du ma politicien. Mhm. bu ma nekkoon bu ma nekkoon politicien yor poste de responsabilité. je veux dire homme politique yi boobu wax lépp. je suis un acteur de développement. je fais de la politique. Mhm. mais pas la politique politicienne. Mhm. parce que Cheikh loolu la ñu jàngal mais ah. dama ne la. Mhm. jeunes yooyu laaj leen amul ku ma ci waxtaanal ci xeet bu demee noonu. xam naa ne daal am na ay jeunes. yu ambitieux yu fa nekk. di liggéey comme man di may liggéeyee gëm seen bopp. doo leen tudd. tudd nga ko ku mel ni Moustapha Kane Moustapha Kane jàmbaar la dëgg la yàlla bëgg jàmbaar la mu ngi liggéey ku ne gis na lu muy def ñoom goo fay ay jeunes lañu comme man ñu ngi liggéey man maa ngi ci bi di liggéey comme ñoom. tudd maanaam tudd sa baax waaye du wàññi sa mbaax dara ay jeunes lañu te boo ko waxee mhm. xam nañ ni ñu ngi liggéey boo ko waxul waa parcelle xam nañ ñu ngi liggéey kon mhm. nañ gëm seen bopp rek nekk ci te xam ni yàlla yàlla rek a fi ne ok ok donc euh, émission bi daanaka ñu ngi si pàcc capaa ndaw gi alors ñu bàyyi la un mot nga ne am na baat bu am solo ba nga bëgg a yëkkati euh, wax ci euh, ki nga xam ne moom moo jiite woon seen mouvement bi waaw foofu moom balaa ma ciy wax rek damay ñaan ñu def benn fàtte ak ñetti li xalaas defal ko addiyo Cheikh Seydi waaw dinañ ko tëjee incha allah waaw mhm. kon euh, loolu baax na waaye Cheikh mën naa ne ni ñu mel tey moonu ko def mhm. waaw parce que yàlla dafa dogal Cheikh euh, yoroon couverture maladie universelle au niveau de l'Afrique de l'Ouest di ko piloté mhm. suñu borom dogal président jëlee ko fa mu nekkoon jox ko couverture maladie universelle au niveau du Sénégal mu koy doxal. Mm-hmm. ci tënk ku ne gis na liggéey bu intéressant bu mu def ci sémi. Mm-hmm. may nuyu nag sama xarit sama doomu ndey Ousmane Diogo Faye moo tax ma xam ko c'est à saluer parce que moom ma ko présenté. Mm-hmm. ci tënk rek waxtu waaw ci tënk ba moo ko présenté yàlla dogal na tamit ñu ànd doxal mu xam ni je suis un de terrain mu dénk ma mouvement la peut-être d'abord au niveau des parcelles ma koy piloté. mais nit la woon koo xam ni waa parcelle yëppiwuñu ko. parce que du woon base am man maa fa nekkoon man la fa tegoon. mais def na fa. Mhm. ay aides sociales yoo xam ni jàppale na fa ay présidente groupement de femmes wutal leen fa ay local maye na fa ay bourse jël na fa ay nit ñu feebar sax yóbbu leen bitim réew faj leen jëndal na leen ay moto pompe ba Grand Médine bii nga xam ne sax amu fa base politique nawet may na leen moto pompe te loolu lépp maanaam c'est à kon ñu mel noonu dañ leen war a di fàttali. te li mhm. may lancer message mooy bëgg naa. Mhm. kàddu yi may yëkkati. réew mi. xool lu précieux ñu tuddee ko Cheikh parce que Cheikh Mbengue nekkul ku ñu war a fàtte. liggéey na ko fi liggéey na ko fi. Mhm. dem te gisuma kenn ku wane lu mel noonu. Mhm. ndax Cheikh du ku ñuy fàtte. waaye état tamit buy def du tàggoo de. waaw buy def du tàggoo mais mu ngi bëgg yàgg. parce mhm. que Cheikh mu ngi mu ngi nelaw le 15 juillet 2017. samedi le 15 juillet 2017 2017 ak léegi 15 jours avant les élections wax naa la ko léegi te boobu yabal nañu ngir ñu dem topp ci coalition Benno Bokk Yaakaar ci ndigalu doyen taxaw maanaam maanaam coordonnateur de Dakar fii au niveau des parcelles pour ñu gagner massivement. kon kooku ba loolu hôpital mu ngi mu ngi mu ngi jàppale réewam kon yoon la tuddee ko loo xam ni. Mhm. waxuma la ay mbokkam mais ñun ñi nga xam ne nous sommes ses héritiers politiques. Mhm. dinañ ci am satisfaction. loolu message bu may lancer la. ok ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw maa ngi leen di gërëm vraiment di leen sant di nuyu sama président Seydouna Omar Mbengue di nuyu Amadou Moustapha Guèye di nuyu di ci jiital nag sax sama waajur bu jigéen soxna Fatou Bari. ak képp ku nekk ci mouvement panel mouvement la patrie d'abord au niveau des parcelles Assainies jubal mhm. di nuyu ñoom Binta Dia mi ñu nekkul unité 24 ak Binta Gueye mi nekk unité 13 di nuyu maanaam maire Fariwa euh. maa ngi nuyu ñëpp daal boo ma mayoon sax unité bu ne dinaa la limal ko fa nekk <laughs> waaye nag loolu xam naa da ci xaj di leen gërëm vraiment yow monsieur Memba di la sant di wax ni émission bi daal nekk na émission boo xam ni émission neex la mhm. émission bu bu bu bu bu bu ngay sentir sa bopp la. jërëjëf émission la bi nga xam ne ñu ngi ñaan daal suñu borom. Mhm. ni mu ni mu tudd Rewmi FM. Mhm. kon yàlla def naal maanaam réew mi amee barke émission bi amee noonu barke. jërëjëf bi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf ñu. bu baax a baax moom Cheikh Ahmadou Bamba Diop mi nga xam ni moo nekkoon tey suñu gan. ñu jox leen dig daje ak beneen invité fii ci rajo Rewmi FM.